application la bu tudd lebal ma c'est ça. Euh, ma nuyoo téléspectateur u TFM et principalement leen ak euh, sama collègue yi si plateau bi. Hmm. Euh, dañ lay aujourd'hui li ma leen indil mooy benn application bu tudd lebal ma. xam nga ñu bëri dañuy bëgg peut-être par exemple jënd ay produits électroménagers wala di am ay ordinateurs en tout cas ay affaires yu nga xamante ne dafa cher. Hmm. donc yenn saay boo demee ci magasin yi dafay cher carrément donc doo ko mën mën a jënd par exemple d'un seul coup. Mhm. donc euh, kooku dafa indi benn solution boo xamante ne ni dalay permettre yow à travers sa sa entreprise bi nga nekk mhm. euh, nga mën a dem lépp appareil bi yor ko sa kër di ko fay par tranche te doo fay intérêt. Ah, voilà donc euh, on est partie le rencontrer. Mhm. mu expliquer ñu fan la idée bi jógee. Mhm. Euh, euh, ak naka la def ba monte entreprise bi ba wax ñu condition d'éligibilité mhm. donc si tu es d'accord on y va tout de suite. après naa la jox sa réponse. ah d'accord. Ah, bon je d'accord on regarde. <laughs> jàng gi donc une fois sur place dama soxloon benn téléphone portable boo am connexion internet en même temps minute d'appel pour mu mën a jokkoo ak sama famille donc bi ma demee sur place ci benn boutique ma gis ne daf may offrir solution boobu donc dama gis ci boutique bi ñu def 23 pounds per month donc ma laajte jaaykat bi mu ne ma mën naa ko fay en 24 mensualités donc ma ne genre projet yi lu tax amul Sénégal surtout en Afrique donc si laa ko commencé xalaat bi ma ñëwee ma am ma développé ko. c'est un projet social bu bi nga xam ne dafay viser à équiper les professionnels en matériel électroménager et high-tech à crédit donc le paiement se fait en plusieurs mensualités. leb bi amul frais. parce que prix yi ñu appliqué ci suñu catalogue moom lañ client bi di jëndee. l' application est téléchargeable sur Android pour le moment mais ñu ngi xool nu ñu koy développer très bientôt sur OS. c' les professionnels qui en bénéficient c' à dire les salariés qui sont en contrat avec la société Lebalma. lépp bi déjà ñun dañu am benn site internet bu tudd www.lebalma.net donc am na benn espace bu ñuy wax demande de crédit. donc foofu boo fa duggee déjà am na contrat boo xam ne c'est téléchargeable donc mën ngeen ko télécharger xool terme contrat yi donc si la société est apte à demander du crédit à lebal ma donc dañuy oo directement donc suñu benn agent dina déplacer au sur place donc du moment que le contrat est signé c'est automatique pour la société de même que pour les employés voilà moom moo initié application boobule ñu tuddee euh, euh, lebalement c'est pas de la pub euh, mais c'est des jeunes qui prennent des initiatives yoo xamante ni actuellement mhm. yenn saa yi da koy gis ci yeneen dëkk yi tu te dis ñi développé nañu et mhm. pourtant il y a tellement de jeunes yu am xel bi ak talent bi di mhm. dafay affaire yoo xamante ni surtout ci wàllu digital bi ñu bëri xamuñu ko exactement Pape Cheikh comme ni nga ko waxee c'est pas de la pub mais comme moom ni mu ko expliqué sax bi mu demee Angleterre di jàngi yenn appareil c'est là qu'il s'est rendu compte que système boobu donc ci xelam il s'est pourquoi ne pas indi ko ci dëkk ci dëkkam mu mën a dimbali ay euh, euh, étudiants yi mel ni moom wala aussi ay nit ñi nga xamante ne bëgg nañ am yenn affaires yi te mënuñu ko te ku nekk xam na ne banque boo fa demee di leb da la ciy tegal ay oh. intérêt yu diis taux d'intérêt yoo xamante ne mooy loolu doo ci mën a génn parfois hmm. donc euh, moom mu s'est inspiré de ce model kila a vu en Angleterre hmm. pour ñëw indi ko fii Sénégal pour permettre aussi à tout tout un sans pour autant ñu siy teg Euh, taux d'intérêt bu diis voilà intérêt bu dis te ci kaw loolu aussi euh, pour sécuriser affaire yi mm. dafa koy jaarale si sa entreprise mm. donc sa veut dire que yow lambda amoo source de revenu et doo mën a dem mm. xam nga boo amul source de revenu doo mën a dem na da ngay leb parce que doo am lu nga ko fayee mais sa société bi mooy nekk sa ah, garantie parce que day am ay conditions d'éligibilité yoo xamante ne ni il faut nga respecter ko nga télécharger contrat bi application bi c'est téléchargeable su ko defee yow sa société moo lay garantie nga mën a jël euh, li nga bëgg li par tranche comme ni comme ni ma comme ni ñu ko bëggee dañ la koy échelonel te doo am benn taux d'intérêt buñ ci euh, boo ci fay donc ñu gis ne que loolu tamit dina mën a intéresser euh, population bi en tout cas la plupart te aussi innovation la si digital ñu tey pourquoi pas ñu indi leen ko euh, wan leen aussi que ni xale yi ñu ngi ñu ngi béy seen waar bu baax. voilà intéressant donc application bi mu ngi tudd. Lebalma et puis on encourage tous ces autres jeunes yuy def ay application nekk ay développeurs. Mm-hmm. di def yu am solo yoo xamante ni. yi euh, voilà mooy wane encore nii euh, xel moom xel la rek. c'est vrai amul tubaab nga amul chinois nga <clears throat> amul nit bu jaune nga amul nit bu bleu nga. ça c'est sûr c'est sûr xel la euh, l'essentiel de faire. Ouais. voilà Pape de dernière minute. Mm. que j'ai eue il paraît que l'Éthiopie. Mm. Euh, veut créer le royaume du Rwanda mais en mode digital. Ah, c'est bien ça mm. c'est bien ça c'est bien ça c'est bien ça. à part parfois yenn grande surprise ci connexion internet yi ngay ngay dégg par exemple dernière. sondage bi ñuy joxe ni Madagascar moo nekk pays africain bi gën connecté. parfois c'est c'est paradoxal Madagascar mm-hmm. bon voilà mais Afrique de l'Ouest Ghana. donc war nañ gën a xoolaat suñu connexion yi débit bi di gën baax xale di ci gën di créer débit débit débit internet on g plus 4G plus ah, amul dëkk yu toll ci si si mais pas pas en si ñu ngi ñu ngi def expérience 5G je pense les Chine Chine Japon machin ñu ngi ñu ngi commencé def expérience 5G. waaw ñoom mën nañu ñoom mën nañu. moom. bon mais voilà yàlla baax na amul benn problème xanaa application bii la <laughs> lebal ma bi non lebal moom lu ma leet nankoo ma leet. ok nankoo la ah nankoo application da nga digital bi de. non nankoo bi bi de dañuy ñëw rek a tout compris. <laughs> noo ko tuddee sànq. <laughs> noonu daal ko def rek. ne rek. comme yow sa lépp digital la. dégg naa sax boo yeewoo booy sol nii rek ngay def. jeex na gisoo moo tax ma def jiin moom rek. voilà mu génn. merci Merry pour euh, Yeewu Tic ca Lamba Daaja ah j'ai envie d'écouter Lamba Daaja